coalition Yewwi Wallu yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na coalition Bokk Gis Gis Pape Diop benn député la am ñi nga xam ne ñooy serviteurs yi ñoom Pape Djibril Fall benn député Thierno Alassane Sall Aar Sénégal ñoom tim am nañu lu toll ci benn député yéenekaay gi nee na bunt bi ak naataange ñoom amuñu député ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn niki démb la ñu ko xamle ginnaaw digg bëccëg gi ci cour d'appel bu Ndakaar yéenekaay gi nee ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar amuñu majorité absolue ndax majorité nga am ko maanaam di nga am lu toll ci 83 député yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na taux bi ci élection yi nga xam ne moom la génn bi ñu ko xayma toll na ci 46 a kaay gi de la sac l'observateur xëy di ñu xibaar nañu ñi nga xam ne waa coalition Benno Bokk Yaakaar il faut ñu jéem a lijjanti ji benn député ngir mën a am 83 députés kaay gi ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall bi ñu ko laajee ci lu jëm ci moom Thierno Alassane Sall mu dem fekki Benno Bokk Yaakaar ngir compléter leen ay député loolee daf koo lànk ba tëdd sa naaj a liggéey di ak mama nous ne pas des vendus noonu la moom ceex na yéen kaay gi di xëy di ñu xibaar naan ñu assemblée bi nga xam ne moom la ñu dëg ma la maanaam du nekk assemblée boo xam ne bu yomb lay doon assemblée boo xam ne bu instable la maanaam boo xam ne dana bëri ay rëq-rëq yéen kaay gi di wal fajri nee na ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoo jiitu waaye amuñu majorité absolue force ñu négocier force ñu négocier ñoom waa Benno nañu ab recours yéen a di réew mi quotidien nee na waaye nag lu am ba des Macky Sall jamono ci naa fal ab premier ministre mën naa fal tamit njiitum assemblée nationale yéen a kaay gi di sud quotidien nee na ñi nga xam ne ñuy waa Benno Bokk Yaakaar Fouta ak Fatick ñoo leen soowee yéen a kaay gi la Tribune njiitu réew mi di président Macky Sall nga xam ne ñuy waa Benno Bokk Yaakaar jamono ji seen pexe yëpp mooy jéem a xool ana nan la ñuy lijjante ay député maanaam ci ku jigi waaye la boo xam ne bu risque la yéen a kaay gi di exclusif Aminata Touré nee na Bokk Yaakaar gagné na a Aminata Touré waxee moom mi nga xam ne moo nekkoon tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar yéenekaay gi di 24 heures nee na ñi nga xam ne ñuy moom lañ leen toroxal ci élection yi ba gagné gagné guñ mën a wax ñi nga xam ne ñooy ku jege bu mag moom la Benno Bokk Yaakaar di dund ci assemblée moom la ñu dëgmal yéenekaay nga xam ne ñuy waa Benno Bokk nañ bu baax a baax wàcc nañ bu baax a baax ndax nag ci atum 2017 ñoom amoon nañ lu toll ci 125 députés 125 députés majorité la benn bokk yaakaar amoon na ci élection jamono ji ñoom lu toll ci 82 député lañ am maanaam nañu lu toll ci 43 ñoom waa benn bokk yaakaar yéen kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Déthié Fall mi nga xam ne mooy mandataire coalition Yewwi Askan Wi moom nag nee lépp li nga xam ne maanaam commission recensement vote yi publié nañ ko ñoom seen yoon nekku si ñoom coalition Yewwi Askan Wi ndax nee la ko waral ñoom bi ñu dikkee ngir wax ne leen kees yi ubbi leen kees yi ubbi leen kees yi maanaam ñu daal di xool lan moo nekk ci kees yi loolee dañ ko ko lànkal ba tëdd sa naaj loolee moo tax nee na gaawantu gi nga xam ne moom la ñuy nekkee la ñu xamul lan mooy ndayam ñoom coalition Yewwi Askan Wallu Sénégal nee na ñoom du ñu nangu benn yoon ñuy sàcc li nga xam ne mooy élection yi yéen a kaay gi la di ñu xibaar naa liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci quotidien la soleil jamono ji mer nañu ba maara di tale dañoo yóbbu yaaxam mbay kanamu yoon ca of naka ndax ñoom dañoo jàpp ne ay ndëngate am na ci anam bi nga xam ne moom la ñuy yore soleil Ndiaye niki démb nag agent yi nga xam ne ñooy liggéeyee Soleil dañu leen a malmené dañu leen a toroxal bañ na tott dóor leen ay grenade lacrymogène gendarmerie ñoo fa jaar teg loxo lu toll ci fukk ak benn ci agent yoo xam ne Soleil la ñuy liggéeyee am na si ñaar ñoo xam ne dañu leen a rawale urgence yéene kay gi nee na liggéeykat yi naka nee na ñu grève illimité grève boo xam ne grève bu dul jeex ba pare nag le Soleil maanaam du génn maanaam la Soleil moom du génn ñi ko doon liira yéene kay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ma ngi ci guddi gu bët séddëgula moom mi nga xam ne dañu koy tuumal lu jëm ci wàllum viol ci benn xale boo xam ne fukki at ak juróom benn la am Sitor Ndour journal bi nee na démb mandat nañu ko dépp yéen kay gi de Le Quotidien nee na crise Casamance sa ngir jàmm daal di si waat yéen kay gi nee na ak waa MFDC signé nañu accord de paix yéen kay gi nee ki nga xam ne mooy njiitu réewum Guinée Bissau di Sissoko Embalo moo ko dox mooy médiateur bi yéen kay gi de sunu lamb combat Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux Max Mbargane nee na du nekk combat boo xam ne bu yomb lay doon waaye biir combat bi lu ne mën na am Max Mbargane nee na kaaw na am diggante Balla Gaye numéro 2 ak